alxuraan bëggug sëriñ bi mbokk yi ñoo ngi fii si kër sëriñ Abo Mbàkke moom sëriñ Fallu ànd ak waa daahiratu Miftaaxu Saxaada doo ngay tërbee kat Cheikh Mamadou Fadal fas yéene ko jëbal si leetar bi nga xam ne mooy wàccaayu màggal Touba Bogo ñoo ngi ko ànd ak sëñ jëwriñ Jongo serigne boubacar ak serigne ibrahima fall anu ko ak serigne pape diagne ah, mo nek ni ñu ngi fi nek ci salle de rédaction bi ak serigne fall jong waaw ah, muy jëwriñ ñu magi ak serigne sawru say ah, wa kon ñu teewlu rek di xaar serigne abou mo serigne fall anou ko serigne dam ñang mi yor walam relation bi rahmatullah ñu leen nuyu bu baax di leen ziar sa di leen jox seen ay bu baax baax di rafetlu jéego yi nga xamné ñong koy def fi ci kër Serigne Abo moom Serigne Fallou nek ci waccay magal de Touba baba diko ko nak moy biñu nag jëw ndigal ci président Mamadou sambo lettre bi nga xamné chaque année dañ ko daan indi fi ci Serigne Abo mbacké mom Serigne Fallou di xalifa Cheikh Mamadou Fall tay ñu def ci délégation ñëw fi ci kër Serigne Fallou fassé yéene koo sa tok and ak yar ak ki teggit fas yéene déglu ndigal lim ñu wax rek ñu fassé né dox si loolu salaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen def su ko mané ma tambal ko tay tay bu ko ma dul ñaanal ma nak damay xey ci bi sa gaat ña ko nekkal man la jaat ba xam dana la may xada ko la jaat may na la tey murit bu war caag jaat tàggoo ci coono waaye nak bu la jaat loolaa waral seug fallu mas na tukki doon sàkkuwaat pepp ci wàllu kokki ci mag mu làqoon ngërëmul sëñ mu wasut rek nag taxut booba ni ko sam pepp daa koy lay nuyu bu baax a baax di la siyaar ci turu dongo yi yëpp mu di san njaboot rek lépp aju ci kër Cheikh Mamadou Fadal comme ni ñu jote woon digal ci ngir sos daayira bi ñëwoon ci it siyaar si woon la ngir gaaral la liggéey bi sëriñ Khalil Mbacke ñoo leen di ñaanal bu baax bu baax a baax ngeen yàgg fi loolu tànn ko wér noonu it ca lañ ca fas yéenee dox doon nañ ca dox ay kàddu itam boobu ba tey eh, li ciy firnde tuuti rek bala ñoo dugg-dugg ci kàddu yi ñun jëwriñ yi ànd ñëpp fi mu toll nii eh, Pape Diagne mi mi ngi nekk ci eh, kër Cheikh Ibrahima Mbacke moom Sëñ Fallou Cheikh Ibrahima Fall mi kër Sëñ Mamor Boubacar mi ke Serigne Khalil Serigne Fallou Diom ke Serigne Aliou moog Baye Dame mii ñoom ñaar ñi ñoo bok nek kër Baye Cheikh man maa ngi nekk fii ci kër Baye Ndam Fall kon daanaka tank yoy nga ñu waxon rek euh la ñuy nekk ba tay ah ñi ngeen ñu bolé won ci biir kër gi tamit muy Serigne Sewru mi ak Serigne Abo ñom ñi ñep ci yëf yi lan ñoo and liggéey bi ñu doon suñu jëw nekkal ñu ci kër gi euh, lepp lu ñuy defit non lañ koy yëgoo ak ñom tank yoy nga ñu waxon nak ci la nek nekk ba tay Eh, ni ñu ko sëñ Xalil daan niñ daan jëflanteeg sëñ sëriñ bi ca Tuubaa boobu rek biñ koy tàmbali dafa yemoon ci dëkk ba rek yàlla dogal ñu dem ba di ko yaatal daan def itam boo xamante ni bii ñun dañuy maase santante ci suñu biir dajante ñun donga yi waaye daan kon ay ati at wala ay weeri weer ñu maase benn bis boobu daje fa ñun donga yi santante waaye gërëmante ngir gën a ah, ah, xamante bi gën a yokk war warloon nag saa bu ak seetee ñu ne ñëw ci sëñ bi gaaral ko ko ren nak ñu jàpp ko fukki fan ak ñett ci rakki gaamu ngin jëm yow ak diwer inshallah allah bu dellu see jàmm ah dañu suñ te def dara te jaaruñ suñ xalil see ibrahim xalil ni suñ jaaruñ tag tag waaw tanga boy ñoo mom ah aji yi jot nak daanaka wala alxames bu jot fi li ñuy defé ndaje mi ah, yàlla atte na itam kon suñ borom dogal ñu fekk def motax ñu ne ah nañ ñew siar ci gaara la liggey bi fiñ ci tollu Eh, di la ci siyaar bu baax baax di la dollee ñaanal suñu borom gën la fee yàggal lool gën la yokk ak wér tañ ànd ko ak yow ci barkeb Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Ibra Fall tabarkalla ñu ngi jéegul bu baax a baax ok bismillah tabarkalla amiin yaa rabbal amiin

déem sax daawuñu ko jaay ci jamonoom sa xaw mi daawuñu ko jaay ci jamonoom dem nañ ci ko carte d'invitation d'honneur bi nga xam ne di ko jox di ko siyaare si wàccaayu màggalu Touba Bogo gi ñëw nañ nag gis nañ ko andi seen ak mbégte mu ñaanal mbokk yëpp gën ñoo soññ gën ñoo ñaaxaat kon nag dañuy ñaan suñu borom defal ñu wér ñu fekk ko si bis bi kenn bañ a manqué si barki si yax Mouhamadou Fadal ñu jox ki nga xam ne mooy Ibra Fall mu sànni kàddu yi gàtt rek ñuy dem aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki daayira Miftaahu Saada donga tër bi waa kër Serigne Fallou seen mbokkum taalibe le porte parole daayira Miftaahu Saada Ibrahima Fall ñu ngi fii nag tey ci kër Cheikh Mouhamadou Fadal jóge ci ku baax ku tedd ku sell ku bëgg Serigne Touba koo xam ne boo ko gisee muy dem rek jëriñ ngay laajte ci ndigal rek la ne loolu nag moo tax ren moom damaa jàpp ne sax dafa ala daw me ndax lii ñu am tey ci xalifa Serigne Fallou bi Serigne Abdou Baraka di ko ñaan yàlla mu yàgg fi loolu te wér boo xoolee rek lépp far dafa mat ndax ndigal li nga xamante ni joxoon nañu ko boole ñoog Serigne Khalil ibnu Serigne Fallou rakam bañ fa demee lam ñu wax mooy yoonu Serigne Touba moom lépp loo ciy def danga koy yokk waaye doo ko wàññi mooy la Serigne Touba ñaanoon rek fustu ayaami addaral umonsi wa fustu bil xaamosi bil xaamosi kon nag loolu wax dëgg yàlla tawfeex ci ci ci bépp koo xamante ne bokk na daayira bi akum ñaax ak dolli la war ci nekk ci yow kon nag na ñëpp jaaju jaajuwaat daasaat pas-pas yi ak yene yi ak bëgg-bëgg yi ñu waaj bis jëm ci bis bu mag ba nga xamanteni bisum ngërëm la ngërëmal yalla ngërëmal Serigne fallu ngërëmal Serigne Touba kon nak ñi nga ñaanal Serigne Abo mu yag fi lol tewer di ñaanal ko xamni bokku ne bi di ñaanal fañ jëm ñu fekk fa jamm te lepp depp ci xol yi nekk ben ci barke Serigne Touba alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh